ñu ngi leen di sant bu baax Sénégal ñu ngi leen di sant bu baax di am mbégte ci laaj bi ngeen ñi laaj am mbégte màggal ñun nag café lañ daan séddale waaye ren dañ cee def nañ ay jéego yu am am solo ndax ñu boo gisee suñu liggéey mi ngi tàmbalee ci néew ji doole yi xale yu reer yi ak doxandéem yi ak way laago yi ñun ñooñu lañ jox jël leen di ci liggéeyal Sëñ Tuubaa bëgguñu ñu ñu xiif bëgguñu ñu mar bëgguñu tumuranke ñoo leen di jox añ di leen jox reer di leen jox ndékki di leen toppatoon ndox waaye ren dañoo gisoon ne ñoom dañ daan tëdd ci ay carton ak tëdd ci suuf ñu daal jël benn engagement jënd leen kenn ku ne jox la matelas bu mucc ayib matelas yi rafet jox leen ko ñu ji tëdd jéego yooyu yokk nañ ko ci ren bëgg nañ leen a defal tamit ay toilette démontable ndax xam nga handicapé ñii seen loxo la ñuy doxee ñii daraam te xam nga douche publique day salte te loolu day xaw a medd ci ñoom ñu ne dinañ wut ay assistant ak ay ndaw yu leen di jàppale bu ñu amee douche yoo xam démontable lay doon ñu jagleel leen ko dinañ am ñu ko saytu di leen toppatoo ba duñ am genn tumurank ci wàllu googu ndax képp koo xam da ngay lekk dinaa net doomu aadama war ngaa wala metti na lool moo nekkoon innovation bi xam naa tamit doole di am foofu xëy na am na yeneen i jàngat yoo xam di ko amal ci màggal ngir déwén mu am yeneen i jéego yoo def toujours ci cadre humain. waaw ndax xam nga new ji doole yeeg xale yu réer yi liñ leen di war a defal buñ leen waroon defal fukk daanaka ñaar rek liñ leen defal ko kon dañoo bëgg képp ku ñëw Touba ngir màggal si doo am benn tumuranke boo demee dooni fenn naqari na ndax sëñ Saliou Mbacke yal na yàlla yokki leeram dafa am benn xale ba ko mas a romb sëñ Saliou woo ko ne ko ndax màggal gi ne xale bi ne ko gi neexut sëñ Saliou ànd ak ni wóol leen ma ko ma laaj ko lu tax màggal gi neexut mu ne ko danga maa xóotti lut sëñ nañ de marché jëndal ko ñaari walis yi yére ndax man de dégg walis màggal gi neexut buñ ko jëndalee ñaari walis yére xale bi ñëw di natt di sol boo lis yëpp jax sëñ bi ne ko màggal gi neexal mu ne ko màggal gi neexal sëñ bi daal di tuuri xéewal ni moom munta munta dégg màggal gi neexut ñun nag ci njàngalem sëñ Saali moom ci la ñuy dox ñu tàmbalee ci ñu gën a néew doole ñun jëm kaw ndax ñooñu mën naa am dañ leen di fàtte wala yitte yi du ko mate ñun ñu tàmbalee ci ñoom ku réer dinañ li bàddali jox la nga añ jox la nga reer loo soxla ñu jox la ko ba fa nga jëm sax boo ko xamee da nga naan damay far toog ci yéen da nga gis benn xale bu leer ñu jël ko di ko toppatoo am na ñu leen di sàng di leen jënd ay fowukaay lu waaye bëgg ñu jënd la ko yaayam ñëw di ko jël si mu ne demut loolu lépp ñun dañ koy am léegi am nañ ci mbooloo mu bari moo xam ci ñoon lañ ba su ñëwatee màggal ci ñun la ñuy dal day gën a yokk chaque année handicapé yi lañ leen defaroon daal bañ demee dañoo indi ñaneen ni leen soxna Issa mooy sunu ambassadeur nañ leen dem ngeen xool teranga yi mu ñuy defal ba ren bi ma leen joxee mat lay am na ko ne li ñu doon wax ci yow gis nañ ci lu ko fa waxoon ndax ñi Casamance la ñuy jóge ñi ci yeneen dëkk dégguñu ñu olof li ñuy wax sax doo ko xam soxna Issa ambassadrice des euh, euh, du ma wax néew ju doole wala boog ambassadrice su askan bi taxaw di leen jàppale tey jéego yooyu noonu yëpp ngay def tey koppar yooyu ak euh, moyen yooyu fan lay jóge koppar yi nag ñun ñoo ko def suñu moyen bopp rek mooy fédération bi xale yi étudiants yi ñu yor étudiante yi ñoom amaguñ liggéey waaye lépp lu ñu am lu ñu fortaatu rek ay dërëm ak ñaar dërëm dinañ ko indi jox ñu ko ñu booleeg suñ boole suñ alali bopp waaye nag gouvernement jàppaleeguñu amaguñ benn bonne volontaire bu ñu jàppale ñoo nga leen di woo nag bu ñu déggee suñu kàddu na ñëw jàppale ñu ci liggéey bu am solo boobu ñuy def pan volontaire ak gouvernement bi ku ci mën a jàpp ndax buntu bu ñuy liggéey la Sëñ Tuubaa la buntu bu ñuy liggéey la yàlla ndax jaamu yàlla ay cere koy def waaye liggéeyal yàlla ci doomu aadama yi lañ koy def ñoo ci woon ñëpp ku ci bëgg a jàpp rek te lu waaye jëf nag yàlla yow lañ koy fekk yàlla du fay kenn jëfi kenn